cër yi bëggoon naa ñu waxtaan ma ñaan la benn affaire nag gis nga bu àdduna di dox ba nit ñëw fi soxla ma rek nga xañ ko ko baa yaa ngi pare xew bi. ah bu baax bu baax ndax moom mayu ma jaam. en xew mi sa xew la de ndax fii moom aw fi ndey aw fi baay yaay sama ndey fii yaay sama baay fii. moo tax dinaa ci jàpp ba doo doo soxla yaay doo soxla papa ci kàttanu ah, yàlla fu la yaay war a taxaw ak papa rek danaa fa taxaw mat ko sëkk waaw ndax man mii ngay waxal nag sa xarit toogul man tooguma moom moom xew mi la yoon.